ñu bari ci jigéen ñi dañuy xëy suba ba ngoon nekk sa portable envoyante ay message ay message yu ñàkk fayda ay message kalam faariq ay wax yoo xam amul benn solo bi gën a métti nag ay man lu tax ma jonga ma ay góor sax dañ koy wax xam nga jonga ma baatu jigéen la jonga ma baatu jigéen la maanaam jigéen mag ñi bu njëkk ba buñ gusaan jigéen mu am qualité qualité qualité pour ngeen dégg li may wax bu baax jongama ay qualité la nga dégg ñu naan diw de ah ticc moom soxnaam dafa jongama day mën a teral gan mën a accueillir nit yaatu lool baax lool civilisé lool xam ni muy waxee ak nit ñi mooy jongama mag ñi dañ daan wax ah diw jongama la macha allah mais tey yow jongama nga yaakaar ni rosa bi la maquillage bi la ah greffage bi nga teg la muuraay bi nga def fashion ba mel ni greffage des fois Nan man lutax ma jongoma jongoma wa parce que jongoma ay qualité la moy qualité jigen ju bax ju set ba mana setal ko kooku mooy jongo ma suba ba ngoon nekk ci sa portable nek sa internet bo de jang dara nek ci mais bu fekke jangulo defo ci lenen ya ngay jëflanteeg ay góor ngir ben portable bu cher ngir o bo sol ngir tubey bo sol ndaysan ya ngi delo sa bop fagn la jele won dem ci ayamul jaaxleeti la ta bàyyiwoo ci sa ta bayiwo ci sa xel moo